اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له bismillah bunti wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu ngeen gisee weer wi or leen su ngeen ko gisee itam ca mujjanteli weeru koor yi dog leen selatu wax na ne képp ko or bis boo xam ne bisi chëkk chëkk la maanaam bis boo xam ne óorut ndax weer wi feeñoon na wala feeñut mu ne moy nga abul qaasim kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci naafi mu jëlee ci abdullah ibn umar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tudd na weeru koor wax ne bu leen oor fekk gisu leen weer wi bu leen dog itam fekk gisu leen ko suñ niisalee jaww ji ba mënu leen koo gis natt leen ba mu mat fanweeri fan su ngeen xëyee ngeen oor wala su ngeen xëyee ngeen dog daal di julli korite sallallahu alayhi wa sallam حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين كتي سرنا جلج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم ووحنا wer ñaar fukki fan la ak juroom ñent wala ñaar fukki guddi la ak juroom ñent bu len or mukk te gisu leen ko su fekkee ne dañoo niisal jaww ji ba mënu len ko gis ñen kontu ba mat fanweeri fan bu boobaa ngeen or wala su fekkee ci korite ga ngeen julli sallallahu alayhi wasallam حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن, جب عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة صلى الله ابن عمر بتي رضي الله عنهما من وخنا نه النبي صلى الله عليه وسلم ما وخنا وير نيلا وير نيلا دالدي آه، نيتل بي مولم بارام داي بي انا بوكو دافي نينت في ak juróom-ñeent fii ak ñaari fukk mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu lem bàmmeel baaraam bi nga xam ne mooy baaraami ndey bi su ko defee mooy ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye ba tey leeral na ko ci kaw su fekkee ne feeñu ci ñaar fukk ak juróom-ñeent nañ kont ba mat fanweer ñu oor wala ñu dog su fekkee ci korite ga la حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين صلى الله محمد بن زياد من دقنا أبو هريرة رضي الله عنه من أبو هريرة وحنا ينتبه وحنا والله مو وحنا abul qaasim ne na ndax ñoom wax ji ni mu tëddee woon rek lañ ko bëgg a nettalee moo tax bu ñu waxee loo xam ne mën naa nangu ñaari wax danañu indi ñaari wax yépp lii la waxoon wala mu ne diw moo waxoon mu ne yonentu bee waxoon wala mu ne abul qaasim moo waxoon abul qaasim tur yonentu bi la naa mi benn la mu ne yonentu bi ne a suumu li ru'yati oor leen su ngeen gisee weer wi dog leen itam su fekkee ca korite ga la bu ngeen gisee weer wi suñ leen ko nëbbee kontu leen ba mat fanweeri fan ngeen oor wala ngeen dog حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راحة فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما صلى الله سيدتنا أم سلمة سخنا ينتمي لبك رضي الله عنها من صلى الله عليه وسلم دفع جنون أجيء نمني وير أنا دفع جنون نين أم وير دوما دوغش كرجي من ba ñaar fukki fan ak juróom ñeenti yi wéyee mu ne solo ko xadis bi dafa xamul ndax dafa xëy dellu ca kër ga wala dafa gont dellu ci kër ga waaye benn la ci mu ne ba mu demee ni jigéen ñi ne ko yow da ngaa waxoon weer mu ne leen weer dana nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca ngoon weer wi feeñ sallallahu alayhi wa حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعة وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين بطي tey li gañu bi yonent bi gañoon ak jigéenam ñi mu a solo nañ jëlee ci Xumayd mu jëlee ci Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa gañoon woon ak jigéenam ñi ne danaa am weer woo xam ne du dugg ci kër gi taxaw mu mu des mu mu des ca mashraba place la boo xam ne mu ngi ca wetu jumaa ja mu des fa ñaar fukki guddi ak juróom-ñeent daal di wàcc pour ñëwaat ci kër gi ñu ne ko yow da ngaa weer mu ne weer dana nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca ngoon weer yu feeñ sallallahu alayhi wa sallam baabu shahra iidin laa yanqusaan qaala abu abd qaala abu abdillahi qaala isxaaq وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذائي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة سلام نجريتشي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وحنا ناري ويري دون ماتن دور دون مانكن دور موي ويري كور اكويرو تبسكي su bii manqué da fay mat su bii matee da fay manqué sallallahu alayhi wa sallam باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين بنتي وخيرا تمين وقت صلى الله عليه وسلم إن ين دون دند دون حساب دون كالكين كالكين سعيد من الدقينة شي ابن عمر رضي الله عنهما mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñun xeet lañ woo xam ne ummiya lañ maanaam ummi yuun du ñoo xam ne dañuy jàng duñ jàng duñ bind arab yi loolu la ñoon bu njëkk gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta jàng mësta bind ak xam-xam yi nga xam ne moo tasaaroo lépp ci moom la jóge waaye lenn ci ñoom nag daan nañ bind ndax ku mel ni Seydina Umar ibn daan na bind ci jaahiliya daan na bind daan na jàng waaye li gën a not mooy ne ñoom daawuñ bind daawuñ xisaab ana ñii di xisaab naan biddiw sàngam bu fenkee weer wi bis bu njëkk lay feeñ biddiw sàngam bu nëbboo weer wi ci fanweeri fan lay feeñ moo tax mu ne ñoom duwuñ loolu mu ne weer nii la bi yoon nële la wala yoon maanaam benn yoon dana nekk ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent beneen yoon itam mu ñëw nekk fanweri fan ku moy yonantu bi nak xas la ci yow bu ne la ummi yu nga moy mooy bi rek bu ne la ummi yu nga xas nañ la wa yonantu bi moom tagg la ci mom ndax mom ak ummiyaam yeb xam xam-xam yeb ci mom la balé jëm ci minde fi sallallahu alayhi wasallam باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم bunti yonent bi wax ne bul jiitalal weeru koor or wala or ñaari bis mel ni ku koy gàttandu walla mel ni da ngay seet sa bopp ndax da ko mën su ñëwee solo nañ jëlee ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne buñ jiitalal bu kenn ci yéen jiitalal weeru koor oral ko bis wala oral ko ñaari bis lu may koo xam ne dafa fekkoon muy or mu taseeg bis boobu mu oor ko wala mu taseeg ñaari bis yooyu wala mu oor ko waaye su dul loolu nañ nekk rek ba weer yu taru ñu oor weeru koor sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa mawlana muhammad وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم